tey jii nag dañoo ñëwoon point de presse bi ñun le bureau municipal commune Thiès Ouest li tax ñu woote ko nag mooy dégg ngeen fan le 20 janvier bi passé que ni le bureau municipal de Thiès Ouest a été euh, changé pourquoi ndaxte euh, boo le bureau municipal bi paritaire woon bureau municipal bi suñu benn con membre conseil attaqué ko en justice bi ñu demee tribunal ñu àtte bureau bi paritaireul dañ ko war a tëggaat def appel ñu àtte encore paritaireul dañ ko war a woote waat kon nag maire woote le 20 janvier bi passé ñëw ñu woote comme noonu la ko waa Thiès Nord bu Birame Souleye Diop defee woon te noonu la ko également inshallah wa waa euh, Thiès Est bu maire Ousmane Diagne di ko defee.

ni condition yu vote yi amul dañuy génn ndax booba gañe nañu ba pare euh, maire toog ni toog leen bu leen neexee sax ñu wootewaat comme la messe était dite ñu ni noonu dañuy génn les condition n'étaient pas réunies te may fàttali leen ni leen le scrutateur bi nga xam ne moom leen tegoon foofu su mu tudd Fallou Ngom il est du mun naa wax ci camp ba la bokk moom moo doon compté bulletin yi moom moo doon génne bi bulletin yi génne soixante-seize bulletin lañ génne ci urne bi compté ñu prétexte ni am na benn bulletin vert boo xamante ni moo ëpp loolu lañ prétexte jóg génn waxtaan génn nañ dem ñibbi ma leen xamal ne ne nag vote bulletin vert boobu nga xam ni moo ëpp mën na jóge ci enveloppe bi nga xam ni moo wan bulletin yi boo koy jël ñaar ñooy taqaloo souvent boo demee di dépouiller mën nga dépouiller teg fekk ki doon dugal ci enveloppe yi parce que dañuy tudd ñaaral ko mais loolu ci mën dégg loolu moo am devant le préfet ñu gagné am quarante voix ñoom ñu am 35 voix résultat yi nag bi mu amee ñoom ñu génn comme ni ma leen ko waxee gerte dem ci biti taxaw di wax li tax nag may ñëwaat ci loolu kon quorum bi moom atteindre nañ ko ba pare bi premier bi jotee bi ñu continuer dañu continuer def suñu vote deuxième adjoint bi ñu koy voté y avait quarante présents ñoo am lañ voter pour le bulletin blanc bi continuer vote troisième septième adjoint chaque fois 39 voix plus que la moitié conseil xam 76, 76 voix chaque fois mon vote voter adjoint mon mo fal devant le devant le sous-préfet mu paré ñu entériné suñu vote ñu dem donc déroulement jour vote bi nonu la démé donc may féliciter dëgg yàlla ñi nga xam ni nommé féliciter également.

li waral loolu nag mooy conseil bi dañu sanctionné comportement yenn adjoint maire ndax yenn adjoint maire yi daaw ñu ñëw dañu boycotté woon systématiquement le bureau municipal prétextant différent avec le maire kooku seen problème la mais adjoint bu fi nekkee commune bi la fi nekkal dañ ko woote loon mu leen wax ni la maire falul ay adjoint adjoint dañ koy woote kenn du ko nommé conseil ñoo koy woote bi conseil yi gisee comportement boobu à plusieurs reprises heure bu ñu du dem ci activité mairie duñu également ñëw bureau municipal systématiquement lañ ko boycotté conseil yi ñu ngi ni sama gannaaw wax nañ ko budul benn wax nañ ko budul ñaar wax nañ ko budul ñett ils ont sanctionné comportement yooyu nga xam ne jàpp ñu ne war na indi euh, war na war na euh, adjoint au maire euh, am na yeneen comportement yoo xam ne xëy na maire dina ci ñëwaat ci vote budget yi ni ko doon defee ci blocage yu bëri yoo xamante ni ñu ngi ko doon def conseil adjoint yi yàgg ko conseil bi yàgg ko xeex yàgg ko bañ donc kon pour euh, terminer sama euh, prise de parole damay dellu si rek di wax ni leen ah le conseil municipal de Thiès Ouest ñun les adjoints ak les conseillers nous renouvelons notre confiance à notre maire Mamadou Djibril, qui est un homme juste, un homme valeureux, un homme courageux. nit koo xamante ne la ay valeur ak ay vertu kese moom la ñun ñii fi nekk di adjoint yi di ànd ak moom di ko jàppale bokkuñ see kenn parti man mi ay deuxième adjoint je fais partie des FDS les Guelwaar at de pur qui bokkul pur bokk gis-gis la bokk kii APR la bokk perd PRP la bokk kii moo bokk kii kële Assane lay mais Pastef la bokk kële ne Virginie ci docteur Sall la nekk donc kon xam ngeen ni ñun ñàkk ñu fayda bay topp maire ci muy def lu ba neex commune commune bi moo ñu ñor conseil yi ci gannaaw boo leen xoolee kenn bokk ci parti ñoom tamit commune bi moo leen ñor kon naa li ma leen bëgg a waxal mooy yenn comportement yi ngeen gis mënuñu bett ndaxte bu ngeen xoolee ñi koy wax ak ñi koy jëf ngeen xool ñi nekk fii di ngeen xam ni Thiès xamante nañu bu baax xam nañ ñi crédible xam nañ ñi wax ñi défendre ngir seen poste xam nañ ñi nga xam ne nag chantage kese moo leen ñor ak dire des contre vérités contre vérités yi ngeen dégg ci presque bi yëpp nous le récusons dara amu ci dara amu ci kon daal pour jeexal bañ bu guddal maa ngi ñu ngi dellu di feddaliwaat suñu kóllëre dellu di renouveler waat suñu confiance ci suñu maire di ko wax ni responsabilité moom tey ji mooy lan

Euh, parti républicain pour le progrès diisoo ak askan bi le président Déthié Fall man nag euh, euh, adjoint chargé de la commission sociale depuis bi ñu installé ci mairie bi man maay adjoint bi nga xamante man maay gëstu man maay vérifier man maay xool ndax social bi teg nañ ko ci yoon wala teguñu ko ci yoon biñu ñu ñu installé dañu ñëw ci mairie bi pakk moo ñu fi njëkk a fekk bi loolu amee euh, d'habitude dañuy dem euh, ci paroisse yi ak ci Caritas yi ñoom ñoo ñuy jox ay liste liste yi ñuy jox suñu ko joxee dañuy ñëw teg ko saytu ko xool ko ku ci nekk euh, ñu jox la sa enveloppe biñ la war a jox bu pat jàllee dañuy ñëw ci koor koor dañuy joxe suukar dañuy joxe ceeb mais naka lañ koy joxee premièrement dañuy ibbi ay dépôt dañ koy bind dañ koy affiché dañ koy tas ci réseau yépp dugal ko ci panel yi nekk fii yépp ñu ni leen képp ku nekk Thiès bokk ci population Thiès Ouest ibbi nañ ay liste ñëwal ci mairie bi nga déposé bu ñu ñëwee des fois dépôt ñu ibbi ko 3 jours wala ñu ibbi ko 2 jours bu ñu ibbee dépôt yi nous nous déposé le euh, nombre de jours dépôt bi nous ñu nous nan la nous dépouiller président commission sociale dafay La présidente commission sociale de toog rapporteuse dafay toog ak membre yi nga xamante commission sociale de toog su loolu nous ñu dépouiller nan la nous euh, par rapport à 18 euh, quartiers yi nga xamante ni ñoo ci commune ku nekk xam na ni Thiès Ouest 18 quartiers moo fi nekk quartier bu ci nekk dinañu tànn selon les critères yi nga xamante ni dama jot a maire daf koy wax. ay critères am yu mu daan wax mooy ne ci jigéen ñi ëpp en plus na nekk ñoo xamante ni duñu nekk ay ndaw duñu suufee tuuti si seen yi at nañu xaw a nekk ay ñu am ay at yu xaw a kawe tuuti bu ñu tànnee ba pare ci critères yooyu euh, dañ koy jël duñu am foofu dañ koy jël yóbbu ko ba ci maire ni ko ñii lañu

Euh, dinañ ci jox ñu bëree bëree bëri ci ñi ñuy distribuer ceeb bi mën naa ci wax ñoo xamante ni tey lu mel ni euh, les délégués de quartier les imams les habitants du quartier gis nga li may wax ni socialu mairie Thiès Ouest ni ñu koy doxalee amul benn mairie buy doxalee noonu social parce que kër yi nga xamante ni dañoo wër mairie bi fu ci nekk commission bi dinañ fa dugg kër bu nekk dinañ jël seen i pièce d'identité dugalee ci social kër go fëgg ni ko jox ma sa pièce d'identité pour borom kër bi dañ lay jox tiep wala dañ lay jox suukar pour social nga ni ba ma fi nekkee ba légui mosuma ko am c'est la première fois lolu am te mi ngi amee ci docteur ci Djité suñu jógee ci lolu dañu jël liste CPRS jël liste les handicapés jël liste sour muets yi nga xamante ni dañ fay nekk kon maanaam ñu suñu social beddiwuñu kenn ñëpp lañ ciy boole couche yëpp lañ ci boole les délégués de quartier les imams dañ leen di jox suñu jugee ci ceeb ba ak suukar ku nekk xam na ni tamit euh, programme Thiès wala programme dëkk bi sax laay wax dafa bari te maire sollicitation yi ko nit yi di sollicité bari na bari waay yoo xamante ni ni yow mënoo sax comprendre gis nga ceeb boobu buñ ko joxee même bu desee 5 6 7 8 ak lu mënti des dañ koy téye tey maire dañuy ñëw ni ko am naa dëkk wala ñu ñëw ni ko am naa ay jàng kii ñëw ni ko tudde nañ ma lii tudde nañ ma laa mais day yëkkati ci ceeb boobu jox leen ko mais yaakaar naa ne jox boobu mu leen koy jox mais ci population bi la dellu duggul ci biiram duggul ci biiru keneen ci population bi la dellu ndax ku wax social ku wax mairie wax xam ne social moo fa ëpp doole suñu jógee ci korite dañuy dem ci tabaski tabaski tamit même chose lañ koy defee dañuy ibbi war les listes jaarale ko fi ko war a jaarale suñu paree ci loolu euh, ku ne xam ne ni maire yi dafa am billetteur billetteur bi mooy jëli xaalis bi bu jëlee xaalis bi day ñëw ak le comptable ak président commission ak man mi nga xamante ni may saytu lépp luy social fii ci maire bi bu ñu toogee ñoo koy dindi benn par benn enveloppe par enveloppe monsieur le la le docteur Mamadou Djité xamul xaalisu social maire Thiès Ouest ban couleur la am xamu ko du ko gis dañ koy joxe ba mu jeex tàkk xamul couleur bi naka la mel am na jour directeur bi daf ma ni mais madame man damaa jaaxle ma ne ko la jaaxal mu ni ma yàgg naa ci maire yi mais monsieur le maire musuma gis ku mel ni moom xaalisu social mënoo xam nan la mel soo ko woowee sax ni ko maire ñëw nañ mu ni la sama yoon nekk ci du pour man pour population bi la ñu jëlaat lépp delloo ko population bi imam yi nga xamanteni ni dañoo nekk ci ci ci ci quartier bi nekk ci suñu commune imam bu ci nekk ak daara yi lañ la war a jox ci social dinañ la ko jox comme ni ma ko waxee les handicapés ak ñi ci war a jox ñëpp dañ leen ci jox man euh, li ma gën a touché ci social yi te mu dund ko ak monsieur le maire mën naa ko wax ah dafa am benn jour koor jot koor passé mu des tàndarma social maire woor ni ma faama damay ndogu doo ma jëndal tàndarma ci biti ma daal di ñëw fekk benn mbuusu tàndarma bu fi des ma jël ci tàndarma ji raxas ko ba mu set yéegal ko bureau ni ko meer am tàndarmaa ngi mun ma foo ko jëlee man ko tàndarma bi desoon ci social bi la mu ne ma du ko lekk mu ne ma du ko lekk li may wax nag samay wax la te muy dëgg parce que man du ma ni kenn yàllaa ngi ni te gisuma ko bu defoon lu war lu mu warul def ma njëkk a génn dénoncé ko parce que bokkuma ak moom parti bokkuma ak moom camp man commune Thiès Ouest moo ma ñor population Thiès Ouest moo ma ñor leneen leneen leneen ñoruma lu jëm ci social maire Thiès Ouest nii lañ koy réglé nii lañ koy joxe ba mu jeex tàkk des fois ñu dema dema dem social dañ koy joxe tabaski ba tam xarit su ma nee ko maire am na ñu ñëwagul de mu ni ma continuer di woote. su ma nee ko maire boîte vocale laa jël mënuma continuer di woote dañuy joxe socialu tabaski ba tam xarit mais su ko neexoon mun ma faama tabaski jeex na ñaata enveloppe moo des indil ma ko te su ma ko laajee dama koy jox muy mësul am te su ma ko ko joxoon ba pare on est en politique ah, beneen camp laa bokk man ko war naa mën a taxaw fëgg sama dënn samp sama dënn fii ci Thiès Ouest pour doon maire ah. mais bu fi defee lenn loo xamante ni tey waru ko fee def damay jàmmaaloog ak moom parce que on est en politique. xam nañu ñun maire bi ñu yor ndax maire bi ñu yor du maire buy sàcc du maire bu soxla dërëbu askan wi maa ngi tudd Fatou Seck Diouf maa yore maa yoroon maa membre commission marché ci laa nekkoon maa maire bokkuñu parti bokk gis-gis laa bokkoon ñëw fii kon aw ma mais di def naka su dul noonu di ko ci jàppale ñu génn ci biti nag di wax dañoo mën a wax rek tey wax waaye nit ñi toog fii ñoom ñu ne ci biti di yàgg maire musiba kees yëpp xam nañ leen maire mi nawloowu leen bokkul ak ñoom xam nga dafa am ñoo xam te ni politique ki la ñuy dund dañuy war a mën a dugg ci ci ci ci ci nga xamante ne ñooy ay kilifa ni ci biir dëkk bi ñu leen di ñu ñuy waxtaan ak ñoom ñu di seen poste di leen compal di rek i problème boobaa kenn du leen dégg loolu mbooloo ba mu bëggoon te amuñu ko fi ci maire moo tax ñu génn ci biti lu leen neex ñu wax ko ko waaye man mi yoroon marché yi ne ci marché bi marché yi ci maire bi xam ni marché yi doxe maire xamu ci lu day li tar fatal ay ni lu dul xanaa ñun ñu pare dépouillé ba def ci ba def li signature bi ñoo defee yépp ba mu xam ci gagné marché bi muy soog a yegg ci moom maire ñëwul xoolul bu ñu paree ñun yore commission bi bu ñu dépouillé ba pare fii lay jaar ci ñoom aadi cellule bi aw fi mu war aw yëpp ba pare meer soog koy jot meer li jëntiwul xamul marché yi ko gañ xamul sax ñi ñi nga xamante ni marché yi ñoom ñoo ko gañee avant ñu koy dépouiller kon nag bu ñu toogee tey ba di wax lenn ci marché yi luñ ci wax dañuy sos dara amu ci kii du kuy sàccal kenn kii du kuy nduxuma kenn dara dëgg sell doomu la def ñi koy toog di ko ŋàññi nag bokk la ñoom fi ñu yaroo bokkuñu askan bokkuñu bokkuñu bokkuñu tarixa bokkuñu du ma wax sax tarixa bokkuñu fi ñu leen yaree ci milieu bi ñu yaroo kon doomu aadama yooyu ñoom ñoo mën a toog di ŋàññi meen di ko wax naka sa loolu ci ci dëkk bi waaye kii ñi nekkal moom ñi ñi di conseil ci maire bi xam nañ kan mooy docteur Mamadou Djité nit ku set ku sell ku teey ku dal la ci liggéeyam macha allah li muy liggéey da koo teg ci yoon su doon luubal du siiw man nekk naa fi ay conseiller keroog ci bi ñuy joxe social comité xam nga lu ma wax maire yi fi nekkoon dañ ma daan bere quota vingt cinq te kii ñëpp la yemale ñi fi nekk ñëpp ñëpp ñëpp conseil bu nekk li ku nekk moon sa morom am moom la koy daal loolu nag xëy na moom la ñu bëggoon ci moom mii amuñu ko looloo tax ñu génn ci presse bi di ko wax naka sudu noonu waaye ñun ñii de ay nit te ànd ak moom majorité bii ànd ak moom conseil yi ñooy taxaw dénoncé ko xam ne li ñuy wax yëpp ci dëkk bi dara du ci dëgg dara amu ci lekkul dërëmu kenn lekkul cent franc mairie bi moomu ñu nit ñi nag dañoo bëgg ñu topp ci seen ginnaaw ñuy yilif maire di def naka suñu noonu maire dañ ci bàyyi te loolu du fi amee ñun conseil yi topp ci ginnaaw ñoo ngi takk suñu sër ba mu dëgër góor ñu takk seen i tubéy ñu ànd ak maire liggéey commune bi ndax ñu liggéey commune bi ñoom. man

te li ma leen mën a wax mooy li ñuy wax lépp lépp lépp dara amu ci kuy wër maire bu jub kuy wër maire bu transparent boo ñëwee Thiès Ouest nga koy fekk transparence am dafa jéggi tey wa man dama nekk fii conseiller nek conseiller civil de Thiès dix ni nga xamanteni ni yeneen gérer li nga xamanteni ni asaka asaka terrain yi jox communes yi maanaam asaka la a tey jii ñu jël la jox la cinquante terrain

leen A ah, 54 lañ jotagum dama bëggoon a xam yéen lan ngeen ci xalaat ñu defal ko proposition mu ñëw ci fi nga xamante ni nii moom mooy commission ñaan ne ñu réunir leen ngeen defal ma proposition par rapport ak li ñu jot ci terrain ñu waxtaan waxtaan waxtaan waxtaan ba sonn mais ku rek xam ni 50 terrain yow nga am 75 conseillers yu ci commune am sa administration yu lay am sa cabinet am sa population yu taxaw yaakaar ci yow yaakaar naa ni loolu buñ la ko kuñ ko a problème lañ quel soit a répartition bi coow dina am coow muntu woon ñak mais nak mu doxal ci transparence mu ne kat comme conseiller askan bi mo leen fal leen élire indi leen fi yaakaar ci ñom te tay ji mairie bi amul benn dërëm benn indemnité bu muy fay conseiller yi te conseiller ñi ngi liggéeyal askan bi liggéey bu am solo mu ne dinaa yëkkati 44 terrain jagleel ko ñi nga xamante ne nii moom mooy euh, conseiller bi si topp mu ne ah administration bi naa yëkkati deux terrain parcelle jox leen ko si cabinet mu am ñi nga xamante ne ni moom mooy ñii liggéey si maanaam cabinet bi fi nekk mais ñëpp xam nañ ni maire ñi koy jàppale ëpp na.

joxaat ko yeneen quinze terrain te biñ koy jox cinquante terrain yi am nañu ko seede woon ñi ngi kon terrain yi noonu lañ ko doxalee kon dina am conseil yu am dina am ñoo xamante ne ni du am lool la yàlla dogal moo tax coow liñ siy wax yëpp yëpp yëpp yëpp dara am ci comme ni gars yi wax rek dil bi dil bi nii la demee beneen bi aussi ñi ngi doon yëkkati coowal euh, euh, congaan affaire congaan ñu koy dégg lu bari di ko wax mu amoon benn terrain bu nekk fii si route de Dakar 2 nekkoon presque un hectare la woon ñun bi ñuy ñëw fekk nañu congaan tàggate na foofu ba presque jaay na lépp parce que équipe bi fi nekkoon ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko validé loon ba mu dégg si procédure procédure pour régulariser foofu noonu mais bi ñu ñëwee fekk nañ moom régulariser gul mais maire lu mu def dañu lii jaaduwul mais da ko en justice top ko biñ ko toppee en justice procédure bi nekk en cours ñun dañoo am li nga xamanteni ni moom mooy lu ñuy wax ay projet structurant ñëpp xam nañ ni suñu projet yu gën a mag bokk na ci boulevard Bartimé bi nekk fii Nguur 1 mooy ñu fexe niñ ko aménager defar ko ba nga xamante ni dina am cadre de vie boo xamante ne nii les Thiessois de l'Ouest dañ fa mën a ñëw di féexlu mais projet boobu dafa fekk foofu noonu amoon benn titre foncier boo xamante ne nii dafa am ku ko amoon te tey pour que ñu mën a doxal suñu projet il fallait que kooku noonu ñu mën ko dédommager dédommager bi moom mooy il faut ñu jox ko feneen ñun nag amuñu feneen. parce que mbuurkat euh, état état moko mom jox mais comme nous soxla nañu foncier pour réaliser suñu projet ñu nous impôt domaine nañu dinañ leen jox lo di ngeen ko titre foncier presque un mais aussi li nga

ben militant bu Pastef mom moko créé mu créé ko dafa lu ko affaire personnelle mom dégg ko mu premier adjoint au maire nekk coordonnateur section communale bu Thiès Ouest ndax depuis investiture yi commission d'investiture bu yeewee askan bi ñu defee candidature yi ñu ne docteur Mamadou Djité la tànn dafa bañ def recours affaire bi dem ci kaw euh, leader yi valider encore Mamadou Djité ba léegi nanguwul bi commencé campagne mu ne day la campagne bi mu tàmbalee boycott mu xam ne lii mënta dem mu ñëwaat campagne te tey li leer moitié, leer moom mooy ci lu mu nekk du dëkk nekkul ci ligne directrice bi nga xamante ne ni président Ousmane Sonko le président Pasteur loolu tracé le 17 euh, janvier Ousmane Sonko ba mu ñëwee ci conférence ci meetingu Yewwi Askan Wi mu ñëw son, ci guddi taxaw ci kaw podium bi sol capuchon bi dafa ne ñu dénk naa leen maire yi nekk fii nii Thiès mu limal ñu woon au temps Birame Souleye limal ñu Babacar Diop limal ñu docteur Mamadou Djité kon ñun ñi nekk Pastef bu ñu déggalee Ousmane tey dafa ne dénk naa leen maire yi ñu nekkoon si meeting bi fii xam na li ñu waxoon kon ku déggal Ousmane Sonko tey dangaa war a jàppale Mamadou Djité

ñu installé ko le 25 octobre 2022 Ousmane Sonko nek président bi mais kóoloo kóolu téem si ki nga xamanteni ne nii moom mooy Mamadou Djité motax mu 80 élus locaux yi fa été yépp ñu jël ko def ko secrétaire général kon tey kooku suñu président Ousmane Sonko am na fi nga xamanteni affection bu mu am ci am na kóolutee bi nga xamante ne nii am na ko si moom kon ñun ñi nga xamante ne nii bëgg nañu jàppale Ousmane Sonko si ligne directrice boobu noonu la ñu war a la war a topp mais Amadou Dia defu ko bi ñuy voté budget bi décembre décembre deux mille vingt deux ñu war a budget ñu war a voté budget exercice deux mille vingt trois dafa boycotté budget bi dafa voté contre le budget mu ne kii warut am budget Thiessois yi dëkk. ouest war ñoo am budget loolu lay tekki demoon na ba nga xamante ne nii ki nga xamante ne nii moom mooy tey suñu mentor di nekk fii à Thiès def si ay démarches pour mu bàyyi li muy def jàppale moom di jiite mu bañ kon tey moom nekkatul si ligne directrice bu parti bi lu koy gën a firndeel moom mooy bi ñuy voté waat budget bi nga xamante ne nii moom mooy deux mille décembre bi passé décembre deux mille vingt nous avons voté le budget pour l'exercice 2024. Le budget que nous avons voté en 2024. Nous conseillons les postifs, pour de nous voter pour le budget. Parce que nous avons un budget pour les pour les tiers de l'Ouest. Le budget que nous avons voté, mais mon cote, mon tchundum, mon voté contre. voté contre. Nous avons voté Nous avons voté contre. Nous avons voté contre kon tey action yooyu mu teg wane na ni tey moom nekkatul ci ligne directrice du parti bi te tey moo tax ñuy woo le conseil de régulation haut conseil de régulation pour que problème bii ni ñu mën ko régler ñu tourner la page di wax ni docteur Mamadou Djité man maa toog ci fan yi rek bi muy def dédicace livre bi euh, kii Ousmane Diagne maire est mu ne moom moo mu ne man maire laa waaye Mamadou jiite moom moo ma gën a jub nii la ko waxee. parce que foofu la ñu population Thiès Ouest di xaar di nuyu les conseils municipaux yi nga xam ne ñoo fi teew di nuyu agent yi yi nga xam ne ñoo fiy liggéeyee di nuyu population yi ñu si woote bi di nuyu presse bi maa ngi toog ci léegi ma ni ko waa presse bi moom. ñun yàgg nañu xam naa xeer bu may sànni la après xam naa dinañ fayu ma ne liñ fi nekk yëpp liñ fi inauguré yëpp mosuñu am presque doy ni mais tey moom <laughs> xaw ma lu xew ba ñoom ñëpp ñu wuyu si. <laughs> nee na daaw daawoon leen woo. ah daawoon leen woo Ablaye Ablaye am nga liggéey fa Ablaye mooy chargé de com Ablaye tu as du travail donc bu ko defee <clears throat> wax dëgg yàlla lii la dañ bëgg bu ñu xewlee ngeen ñëw ñëpp teew. parce que li dañu bëgg ñëpp gis ko donc ñu ngi nuyu kër yi te li nga xam ni ñoo ngi koy waxtaanee après ñoom ñëpp dinañ ci jot bu ko defee li waral jataay bi je pense ñi ma jiitu wax nañ ko ba pare feneen ko laay la xëy na man li ma ci bëggoon dolli mooy olof daf ni ku rendi xar il faut nga bàyyi ko mu wëkkatu ñi ngeen dégg ñuy wax dafa am loo xam ni mooy metti seen xol te du faju mooy bi ma fi toogee ba léegi ce groupe fexe nañ lu ne pour bloquer ma pour ma bañ a liggéey Assane am na lu ñu ci rappelé léegi

La moo nous ñu bureau municipal mu bëgg deux ans yi ci tolérer supporter leen ci donc booy jéem di jéem di télé, nga xam li ngay parce que loolu mooy nit intelligence jéem nga première tentative conseil municipal bi la

je l'assume entièrement quatre ñi ci génn mooy kat yi nga xam ne dañu taxaw bëgg a toog man fi ma toog te man fi ma toog teguma fi sama bopp yàlla moo ma fi teg jaarale ko ci nit ñi ñoom su fekkee dañu bëgg nekk maire nañ xaar ba mandat bi jeex ñu dem ci askan yi wax ak ñoom bu leen askan yu falee ñu ñëw doxal Assane wax na ko léegi ñi ma jàkkaarloo loolu ñëpp ñu bokkoon coalition foofu laay démarrer ci coalition bi Yewwi parce que man j'étais le candidat di Yewwi Askan niñ ma choisiré Assane wax na ba ñu ma tànnee kii nga xam ne mooy sama premier adjoint jiite mbir mi ngeen gis yëpp lam ca def ñi fi toog ñëpp ñu bokkoon coalition fekk nañ ba loolu jàllee ñu fal ñu man ak moom kese yàlla tiim ñu nee naa ko li nga nekk génn ci dañ tourner page bi fal nañu dañu war a ànd liggéey nañu liggéey te ñu nga nekk woon ñëpp wax xam nañ ko ñu ne woon ci coalition bi doon campagne bi ñëpp fekkee nañ wax gis nañ mu ne dama bëggoon nekk maire comme yow lii la ma tontu keroog mais frustration boobu man lu ci mën dama bëggoon nekk maire comme yow mais nekk maire man sa jiitu na sama juddu sama destin la nga war ko nekk ma nekk ko et nekk maire lan la ban ban ndomba tànk la boo xam ni jar na ngay dugal àdduna pour nekk maire yàlla def na leen di teral la mais teraanga gënul rëy nekk nit amul beneen teraanga bu ëpp nekk nit ndomba tànk yi ñu yor day jeex rek cinq ans la même bu ma fi amee deux mandats dix ans damay dem sama yoon après keneen ñëw Aliou Sow moo fi nekk ma remplacé ko keneen daf may remplacé mais loolu jar na dugal àdduna jar na nga ni tey il nekk ko par te yàlla bëggalu ko li xew coow li yëpp ak lu la waay mën di wax lii mooy coow li ñeneen ñi ci àndal mooy ña taxawoon mooy li wolof naan langu noonu du tuuti ndax ku mer te nga jëm te ngeen dégg mu gën ci ñaaw làmmiñ jour bañ may installé premier jour bi laa wax premier jour tout le

vraiment wax naa ko Ablaye nii di sama chargé de com yàgg naa ko wax gis nga man amul benn ligne bu nekk ci budget bi ñu la dërëm ñii quarante quarante millions wala cinq millions fii la jëm benn dërëm ma ko ciy jël di ko dugal sa poche bu dul nekk ak marché bu mënti doon nag marché yi ñu tudd yëpp nag laa la wax amul benn dërëm boo xam ne fii fell na ci dugg sama poche man ruus naa loolu jomb naa loolu

moo tax pour gàttal wax ji dama comme loolu man la man la engagé personnellement man la ñu taqal ñu dama sàcc démb la déposé son plainte ci procureur de la République pour diffamation et dénonciation calomnieuse bu ko defee ñu àtte ñu ci kanamu gor yi kanamu àdduna su fekkee ñoom dañ koo ñeme man mi nekk ci dëgg te xamul ci dëgg laa taxaw du ma ko ragal ilaa yow li du ma ko ragal te yàlla ñu yàlla àtte fii nag waxuma mu xaar ba ëllëg nañu àtte fii d'abord wala ñoo dem fa ñëpp gis àdduna yëpp gis kan moo nekkoon ci dëgg ak kan moo nekkoon ci tappale donc foofu laay gàttale wax ji li ci des dama koy liir français parce que presse bi dina ko soxla ak ñenn ñi nga xam ne dañuy déglu